bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani wasalaatu wasalaamu ala rasulihi ilkarim wa ala man itabaahum bi ixsaanin ila yawmil xumum bismik yi nga xamante ni yéen a ngi topp seen chaîne Majmahun Nurayni TV ñoo ngi dikk ak yéen ci ay yóbbal yu am solo yu am njariñ yoo xam ne léeg-léeg ñu jëlee ko ci téereb sëriñ alxaaji mbàkke moom it mu jële ko ci téereb suñ bu Mbàkke bi ñuy wax Naylul Awtaar tey jii nag ñu indi ci benn ci njëriñ yooyu muy wax ji mu wax ni yonent bi sallallahu taala alayhi wa nee na ku wax laa ilaha illa dëgg ci xolam yàlla jéggal ko mbooleem bàkkaaram yépp laa ilaha illa nag tudd ko baax na ci weer yëpp waaye rawante nag weer wii ñu nekk di weeru ramadaan ndax weer la woo xam ni dañ ciy nàmmi pas-pas yi léeg-léeg kilifa yi dinañ ci faral di joxe zikr laa ilaha illallah lu bari ngir su boobaa kay def loolu xolam bi dund bu baax te dana ko dolli ragal yàlla masalan koo xam ni rekk def nga ci weer wi cent vingt quatre mille laa ilaha illa allaahu yoo xam ne danga koy xaajee ci ay bés yoo xam ne mën na jàppande ci yow nu mu jàppandee rek ci yow baax na waaye saa yooyu tëj nga wax muhammadun rasulullahi sallallahu taala wa sallam kookee nga xam ne moo def loola ab xolam dina ci dund ak jegeem yàlla it dana ko ci amee